salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccu waay bu wér di ñaan Sénégal yal na fi jàmm yàgg di ñaan waaye daw luy suñu borom yërëm leen te xaar leen ci àjjana firdawsi ñi feebar tëdd ci hôpital yeeg ci kër yàlla suñu borom fëgg seen bopp dawata ñu caabi féetee ginnaaw yàlla suñu borom may leen liberté ndax liberté dara dàqo Sambour in ba fi rawatina waa Cap Manuel Sambour bu baax a baax di leen ziar di leen jox nga xam ne bëri nag ndaanaan bëri naa champion bu ne te ñëw fi muy waajal digganteem ak booy mu doon Thialy Mber nuyu naa la. waaw ñu ngi leen di bu baax a baax di sant àdduna di sant rawatina parcelle 1 ba 26. waaw di sant ñëpp rawatina parcelle bu ma dëkk ak gannaaw bi bu may entraîné 22 parcelle maa ngi sant di sant sama waajur bu baax di sant sama papa ak sama yaay bu baax a baax a baax di sant sama wasila mi Seydi Aboubacar Si radiyallahu taala anhu yàlla na yàlla yokk leeram tas ci barke di ñaanal sëñ Mbaye Sy Mansour yàlla na yàlla mottali yéenam yàlla may yàlla defal ñu jàmm Sénégal yàlla def fi jàmm ci barke Mouhamed. dafa mel dañ laa fekk ngay def science yu doy waar booy Morone moo ko laaj wala. waaw may lu ma la wax léegi rek nee naa la yàlla dafa ma suturaal macha allah quatre sciences laay def par ma quatre sciences la man day du booy Morone de man booy Morone fu mu toll nii taxul may entraîné. waaw xam nga lekk moo tax. waaw mais booy Morone fu mu toll nii man fu mu toll nii dama maanaam dafa am benn logo bu ma bokkoon yàlla def ma ñu ma daan si làmb ñooñu yàlla def ñu raw ma ma koy nangu nag xam ne yàllaa ma ko teg te ñooñu dama leen war a fekki te combat bii nii laa war a wane résultat pour fekk leen. célébrer na 10 combats 2 défaites. te loolu ma la wax. combat bi laa war a wane preuve. komba bi laa war a wane pour passer bac. komba bi laa war a wane pour fekk samay naataangoo si kaw. combat bi may sama yoonu million. combat bi mooy sa yoonu million. bi may sama yoonu làmb combat bi may sama yoonu million combat bi may sama yoonu tekki. est-ce que li ngay wax ni bu jour ba di nga ko jëfandikoo diggante ak Boy Maroon. c'est nga sama combat mujj bi maa man Calamber aw ma lu may daw si làmb xale laa 91 laa barki Serigne Babacar si moom bu jógee ne mag xale bu ndaw laa man làmb damay ñëw attaqué la du ma xaar de. sa digganteeg booy ma doon séntu nañ sa digganteeg Fils de Balla ñëwaat. combat bi may dàq sama diggante maa Fils de Balla parce que combat bi du ma si xeex damay bëre damay ñëw bëre ñëw ma pour xeex non non booy ma doon dama ko bëgg maa maa ko dàq bëre téeméeri junni yoon ñu ma bëreel xaaj xaaj booy ma doon yow dooleel bëreel. li muy compétir li bi nii. nee naa la ko tegal douze lourds douze lourds nañ ko ko tegal mu braqué leen ñoom ñoom man loolu yëngalu ma man compétition bu muy def ni sax moo man combat bi gën ma neex. comme compétition barki rasulillahi wallahi lazim taalibe Seydi Aboubacar laa du ma waxantu booy ma doon bañ ma koy jox commencement bi neexuma woon. ndax la neexul parce que yàlla dafa def dëgg la mbër la champion la mais xaw ma ko. lamb simple lañ ko gën a xamee mais damaa suivre mbapat. combat la def si. damaa suivre mbapat muy daan ay poids moo tax ma gën a bëgg combat bi. poids lourd yi muy daan gën a gën a bëgg combat bi. muy daan si lamb ji moo tax man ma gën a fonk combat bi xam ne man kii may bëreel maa ngi moom suñu combat dina neex parce que ay ndaanaan lay bëreel di leen braqué kon maa ngi moom suñu lamb du yomb. combat bii ñëwul sax pour bëree dafa ñëw pour samp ak yow jaaga xeex. <laughs> yow la wax loolu ah. seetaan nga ko. <laughs> booy moroon barki Khalifa Ababacar si bu sampee man jaaga man fas yéenoo ma xeex moom si làmb fas yéene xeex yow. bu sampee man jaaga bu dee duma ko dóor mu daanu lu ma la waxati bu ko gëm. yow nga booy moroon mu daanu man ko yow is ba nga dalee seetaan làmb la est nga dégg ku toog télé mbër mu toog télé ne maa ngi laa calambeer man man maa ngi tourbillon man maa ngi calambeer est-ce que xam nga calambeer yow. man bañ naa ko ba xajuma ba xajuma ba xajuma Ndakaaru man àll ba laay nekk su ma la duggee boo amul sens dëgg da ngay dee da dem si mag yi nga laaj ne lan may calambeer ñu wax la lan may calambeer man damaa wuyoo sama turandoo. li nga wax da ngay xaw a booy Mor. non booy Moroon nappu ma ko champion la ndaanaan la wala dafa def ay preuve si làmb maa ngi dégg sorte mu ne nawloo ma mu ne man duma adversaire am. adversaire am man dama la nawloo dama la jox cër dama la respecté. <laughs> mais bu bis ba xalifa <laughs> Khalifa Ababacar Sy di nga xam ne paa bi am na doole. combat mooy sa onzième combat. combat mooy sama dixième combat. mooy sama dixième combat. sa carrière nga am ñaari défaite. sama carrière naa débat ñaari défaite laa si am sama carrière ma sant yàlla bu baax mais xam nga tey làmb ku kuy bëre mooy daanu te man yàlla suturaal na ma ni ma dara ñi ma bëri yëpp wanu ma ñàkk fayda fu la laay ñëw wone lu yàlla def ma xam ne loolu la yàlla def. Cali Mbër moo leen feree ne ay ay Fils de Balla. waaw déggoo lu ma la wax man ñi ma bëral métit buñ ma teg coono buñ ma teg ak fitna buñ ma teg booy moroon du ma teg loolu. muy sama combat. muy combat yëpp muy sama combat maa Fils de Balla sama combat maa ndigal sama combat maa Boy Balla bu siiw xutaan sama combat maa Feeraay sama combat maa Poul ak sama yeneen yenn combat ñu ma teg xaaj xaaj bi booy moroon du ma ko teg. moo def dina teg jaaga dina teg bëri. na teg jaaga na teg jaaga xam nga maanaam tey jii xam nga maanaam ñu dëkk la micro ngay wax dafa neex te tey ñu dëkk la micro sa biir fees nga toog sa équipe ñëpp wër la ngay wax naan calambeer paa la waaye nga nekk foo di wax naka su dul. di rang. man nee naa la 91 laa man nee naa la 91 laa xale bu ndaw laa. 91. 91 juddooguma sax xale bu ndaw laa. la moo tax mu waaw mais c'est xam nga maanaam tey jii man damay ñëw bàyyi sama moustache bàyyi faas yi mu mu wàcc man damaa doon sama turandoo macha allah damay bàyyi sama faas mu wàcc ñëw su ma ñëwee wan la yar ak teggin léegi yar bi nag bu ëppee danga may teg paa cër bi bu ëppee danga may teg paa mais bu yàlla defee ba dara desul ñu tëj barrière yi ba yàlla def ñu garante premier contact maa yow di nga xam ne kii kat lu ma ko foogee woon nekku fa. nee na seetaan na sa diggante Kaani Sadam nee na combat bi moo gën a gaaw sa diggante. <laughs> ba yow xool ma ma wàññeeku gis nga ma. yow xam nga ne ma dama wàññi poids. léegi bu dee 47 dama ëppoon nga ni. waaw ah, man ji xoolal bu ko neexee mu mel ni élastique bu ko neexee mu xoolal bu ko neexee mu gaaw gaawaay boo xamante ne nii bu ko neexee mu gën a gaaw ca lambeer booy mënoon lu mu def ma gis ko si kàttanu suñu borom. bu ñëwee samp xeex. déggalu ma la bu ñëwee sam bu ñëwee samp xeex sax lu ma xeexee moom damay bëree ak moom booy mënoon maa ko dàq xeex macha allah maa ko gën a neexu loxo macha maa ko gën a diisu loxo mais bu ñëwee sant samp xeex damay bëreeg moom parce que man loolu lañ ma yebee bëreeg man lamb ji bëre lañ ma sas sant ñu ma si xeex. combat bii nii. Calimbe fas yéene wutee samp jaar dama ñëw fas yéene ma foo ma wane sam bopp. parce que fu mu toll nii 12 million habitants yëpp jël nañ favori bi <laughs> jox ko ko. li mu wane si compétition Mbapat moo tax. 12 <laughs> yëpp jël nañ man lamb ji man dafa ma neex parce que dañoo jël favori bi jox ko jël lépp jox ko ko te man nangu naa bàyyee ko lépp. mais gis nga le jour J le jour J ba Calamère simmeeku mu simmeeku ma simmeeku bañ jàkkaarloo maamu ba ñu fees to face ñu tëj barrière yi bañ jàkkaarloo lu fay neexee maa koy def. ci kàttanu suñu borom. si xeex si bëre. lu fay neex kay maa koy def. wax waa waaw Jax moom wax fa dëgg neex yàlla wax fa dëgg neex yàlla Jax man dama koy sant man ba ma ko xamee yàggul yàgg naa ko dégg si promoteur mi ngi soog a tëgg sama combat. mi ngi soog a tëgg mi ngi soog a tëgg sama combat xam nga tey maanaam tey boo nekkee xale. nekk ndaw yàlla def man ma jóge si grand combat si grand combat laa jógee kon normalement grand combat laa war a demaat mais ñu boole ma si ay calaf si ay mbër yu mag ma accepté ko c'est ga moom ba mu ñëwee macha allah daf ma fay xaalis waaw xaalis dama fay te ginnaaw yàlla nañu fay na fu mu toll nii man maa am fu mu tolli nii bi man maa des si contrat bi te bëgguma lu remplir contrat bi. li mu waxatee woon ak yow moom Jax def na ko. waxantee man yëpp def na ko fu mu toll nii man waaw di jëlaat lépp nag di jëlaat di ko teg si loxo yàlla borom. waaw di jëlaat lépp di ko teg si loxo yàlla suñu borom yàlla mi nga xam ne moom moo yor ndam te si kàttanu yàlla gëm naa ne si kàttanu suñu borom yàlla dina ma may ndam man gëm naa loolu. parce que maa ngi koy jëfee maa ngi koy waxee maa ngi koy doxee parce que tey boo xoolee tey science yu ñu dem nga xool ga maam sa lu may teg maam sa di ma teg loo xamante di ma teg lu metti lii lii nii lu tuuti la li ma teg nii lu tuuti la. teg nii lu tuuti la wallaahi lazim maam sa daf may entraîné ba man damay jooy ay ñoom jibaa ay cox jibaa di ma entraîner di ma teg si yoon di ma teg loo ne man sax dama naan ñii nii est-ce que bëgg nañ ma fekk or dañoo bëgg rek ma am ndam di sant grand aada aada aada aada ñu ngi koy sant bu baax parce que sonn na si mbëru parcelles yi te ñu ngi ñaan yàlla ñaan yàlla mbër yi yàlla nañu yàlla suturaal ba yaakaar bu mu am si ñun yàlla nañu yàlla def ba ñu mottali yaakaar bi mottali yéene bi tamit te am nañ si yaakaar bu baax a baax si kàttanu suñu borom. mobilisation fausse tool. waa déggoo lu ma wax man nee naa ay booy ndaw ñoo ma dar. <laughs> ay booy ndaw ñoo dar sama làmb. xam nga damaa dégg wax waa Pikine ñuy wax benn wax benn wax bu ma metti ne seen maam moom moom stade bi. waa Pikine wala booy mënoon nga bëri. booy mënoon fa la dëkk du Pikine waa Pikine laay bëral man waa Pikine laay bëral. bëree booy mënoon. booy mënoon dafa ne waa parcelle lay bëral mais man waa Pikine laay bëral man bëralu ma booy mënoon kasa de waa Pikine dañuy ñëw naan ay stade bi suñu maama ko moom suñu kii yéen stade bi seen maama ko moom ngeen di xoolee ngeen di xoolee stade bañ nang ko seen loxo. kon yéen amoo leen fulla non mais dañ ko nangu seen loxo sama maam moom man li sama maam moom dama siy teg loxo ba kenn du ko nangu loxo ba kenn du nangu ñëpp ko moom a moom stade bi stade bi ñoom kese moomuñu ko seen ñoom naka lu ñuy xoolee ba seen seen toolu maam ñuy xoolee ñuy xoolee bañ koy nangu seen loxo man sama toolu maam kenn du ko nangu samay loxo ñu bërëngoo <laughs> ma xam lu ma bëgg sax booy moroon dama bëgg mu mobiliser ñëw feesal stade bi day mobiliser moom man yàlla dafa am lu mu def si man man mbooloo bi lu mu gën a bëri man yàlla dafa def man xabtal du ma xabtaloo si saafara du ma xabtaloo si man xam lu may xabtaloo mbooloo bu bëri man mbooloo man mbooloo lu mu gën a bëri may gën a xabtalu te xam naa ne dina mobiliser xam naa te man si kàttanu yàlla sama waat maa ngi gërëm waa mafia calambeer bu baax ay booyu ndaw ñoo si nekk ay booyoo xam ne barka wala booyu am jom booyu am talent combat bi ñoo si nekk lekkatuñu naanatuñu ngir uniquement ngir mobiliser ngir mobiliser fees a bi combat bi man dama bëgg cinq bolok yu ñu may jox ma jeexal cinq bolok yëpp talon waaw yow combat bi cinq bolok laa siy jël si kàttanu suñu borom nee la lamb ji may sama yoonu làmb moo tax lépp lu ma am dama ko siy xëpp combat bi mooy de déggalu ma la combat bi may sama combat million <laughs> combat bi lépp laa si xëpp suñu këyi du kër laa wër ba sonn gisuma ko mais su ma ko gisoon dama koy teyle baa kër gi barke Rasuul la sama yaay ko nëbb parce que lamb ji jaral na ma ko ah. lamb ji jaral na ma parce que adversaire bee tool noonu adversaire bi nekkul ko ne maanaam dafa toll si bëre wala tool si kii mais dafa bëri wax il par tro lamb wax ko yor benn maa ko gën a jàng maa ko gën a tubaabe ñett bu dee bëre ko dàq bëre ñeent man li ma capable xaaj xaaj bi capable capable ko moom mi ngi soog am combat. kon yi mu am du combat. waaw yow combat la xeebalu ko. mais moom mi ngi soog a am adversaire nam nag si loxo yàlla la nekk mais mi ngi soog a am adversaire boo xamante ne ni moom sax xam na ne moom bu tëddee du nelaw ndax man combat bi fas yéene wu ma si maye dara. ma déggee sa wax mi ngi soog a am boo xam ne bu xeexee dina xeex bu bëree dina bëri. loolu ma la wax lu mu di mbax ma ti mbax ko ko. lu mu rimbax ma timbax ko ko. jàkkaarloo ak moom. booy maroon yow loo rimbax ma timbax la ko yow daxoo maa bëre daxoo maa xeex mais dama fas yéene ñëw bëreeg yow dama bëgg ngir yàlla ngir yàlla boo bëggee ñu def spectacle bëre maa yow cinq minutes spectacle suluñ jalañ jalañ suluñ maa ak yow cinq minutes ñu soog a bëre lépp si ñu soog a bëre kele boo def ma dindi kele bu ma def nga dindi ñu soog a bëre. samp jaaga te buñ sampee jaaga boo ma mënoon yow buñ sampee jaaga da ngay daw génn stade bi. dégg naa sa gaale soriwul. gaale moom sax jaaga ngay daw génne saabu si kàttan suñu borom. bu ñuy sax man ragaluma ardo man sama écrit damay wër gars yi dañuy wër ne ay Yékini Junior di door sama kanam ba sama kanam gi di neewi. ardo bi amul soow waaye man damaa ragal ay coups. ardo bi amul soow man ragaluma ay coups man gis nga lamb jii si kàttan suñu borom xam nga su ma nee sama bakken laa teg laa teg sax ñàkk gëmadi yàlla la ndax yàlla suñu borom moo jox bakkan pour ñuy nooy mais làmb ji dama bëgg wax ne lamb ji si kàttan suñu borom may lamb ji may sama destin resté si lamb ji. may sama may sama kari may sama àdduna. xam moom nee na moom dafa bëgg lamb ji moom xale la nee na man mag laa moo ma gën a bëgg lamb ji. yow nga paa. naa ko nee naa ko cër yàlla moo koy joxe daf maa jox cër daf maa nawloo nawloo boobu nag dama koy jël mu jox ma paa bi mais bu bis baa maa moom bu ñu dajantee rëb bu ñu dajantee premier contact bu dof dof la sa président bi da koy yàbbi. bu dof dof la <laughs> xam nga xam yaa ngi dégg li ma la wax de bu dof dof la président bi da koy yàbbi. booy ma doon buñ talantee rek boo doftuloo président bi da nga koy yàbbi yàbbi ngay def président bi yow booy ma doon xam nga ne man du ma tapet man sama askan amul ragal fiñ toll dafa mel ni booy ma doon da jël lépp sëf ko ko xeex beeg bëre beeg lépp yow yaa ko moom booy ma doon na jël xeex xeex bi bàyyi naa la dirisé léegi xeex bi mais man xeexuma waaw ah. la tàggatoo woote waale dañuy santaat yàlla rek waaw di di julli si yonent bu baax a baax a baax di sant suñu waa dëkk jaaba waaw man Foutanké laa te je suis fier d'être Foutanké ndax tey ginnaaw yàlla yonent bi lu ma am Fouta la di sant waa jaabu Lidube jaabu Lidube fu ma dëkk maa ngi leen sant bu baax a baax baax jaabu Lidube maa ngi leen woo si combat bi di leen wax ne jaaba min calambeer mu daji combat moo do ma day kam duwaaw mu daji combat mi ne boy maroon ba déykam waaw jaaba jaaba laa dëkk di nuyu waa Xorofonde sama yaay Xorofonde la dëkk maa ngi nuyu waa Xorofonde bu baax baax a baax a baax baax a baax a waaw di nuyu waa Casamance hmm? di nuyu waa waa Bogel waaw di nuyu ñëpp di nuyu di nuyu di nuyu parcelle 1 ba 26 maa ngi leen a nuyu di leen wax ne Thiel seen doom am na combat di nuyu parcelle 1 ba 26 di sant Ama Dia Ama Dia maa ngi koy sant bu baax a baax a baax Ama Dia man Thiel Lambert maa ngi lay sant di wax ne lamb ji sa lamb la yaa aw jël leen làmb ji ngeen àgg moo ko di sant lom lom maa ngi koy sant spécial di la lom di la sant bu baax a baax a baax baax di la wax ne ñaan yi ngay def maa ngi gis lom Hamidou Hamidou Dia waaw di leen sant bu baax di sant maman waaw maman kooku kenn la si man <laughs> ndax moom day ñëw di jël xaalisam di ko def si man te yàlla def na ba ñu xamante yàggul mais wallahi yàlla def na xamante nañ mais ñu xamante lépp si biir mbokk la yàlla def ñu jiñ teranga wallahi lazim day jënd ñaari xar di ma woo këram ne ma kaay lekk te xam nga ñun bëri dañoo bëgg lekk maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla defal ko di sant maa am sa bu baax a baax di sant sama yaay sama yaay maa ngi koy sant bu baax di sant parcelle parcelle maa ngi ñaan yàlla képp ndigal mi am combat yàlla na ko yàlla may ndam sana yàlla na ko yàlla may ndam yàlla may ma ndam yàlla may alburi parcelle képp ku si am combat ak gugoo tam yàlla may leen ndam maa ngi sant ñëpp booy jóob ñoom ñëpp parcelle am combat yàlla na yàlla may ndam lu rëy rëy rëy booy ma doon mais ma wax ak moom waaw sama booy ma doon booy Maroon xam nga Boy Maroon xam nga duñ la dékk micro ngay wax di sëgg mais man sëgguma man dama lay xulli te balaa mooy neex sax ñu jaxarloo maa yow signature ba jaaxaarloo maa yow ñu jaaxaarloo face to face jaaxaarloo maa yow toog ñu may ñu une heure de ñu def face to face maa yow jaaxaarloo si ngay xam ne man gaynde laa man du ma ragal. te booy moroon yow bis bu ñu tëjee barrières yi barki Seydina Mohamed di nga xam ne ca Lambert nga amal affaire bu mu toll ne loo mën a def ak loo mën a préparer préparer ko xam ne am nga combat du yomb de wallahi lazim du yomb si yow du yomb si yow du yomb si man mais si kàttanu yàlla xamal ne ndam li si kàttu suñu borom maa koy téye wasalaam. jaajëf Khalil mi ngi noonu.